ngir gën a mën a jot ay vidéo xibaar aboneel ci chaîne YouTube bu Caaroy info TV nga daal di bës li nga xam ne moo di cloche bi ngir mën a jot yooyu les notifications. waaw man na dafa am lu ma métti loo xamante si bii dama koy dóore seen mbokk xee ay xeer yéen mbokki internet ak yéen ñi yor télé yi yéen ñëpp ngeen dégg ko dafa am benn femme bu faatu woon Louga yàlla na ko yàlla yërëm. wa basiri saabirina allasir isa asaabatum musibatun qaalu inna lillahi wa inna ilayhi rajiuna yàlla na ko yàlla yërëm mais yàlla dogal na médecin yi nekk foofu lànk na nu ngootunoo faj sunu jigéen ne fa danoo sonn na ngeen xeexe woon ba ngaa si bi tey jàppale ngeen ndaw si faatu jàppale waat leen ko waa Kébémer ak waa Louga wanu te yàlla tax nguur yàlla day jeex nag nanu jàppale te yàlla tax mu wax ak ah, médecin yi ñu nangoo jëlaat suñ soxna yi ak sunu doom yi sonn nan ku fa ëmb yaa ngay amee ji doom Tiwaawan wala nga di ko amee ji wala nga di ko amee ji fële tuubaa te loolu jékkul wala cees léegi amul benn malade bu ñu yanooti yóbbu Louga léegi loolu dimbali leen nu te yàlla tax yéen internet yi doon wax ak seen de télé yi waxaat leen ci nu jàppale jigéenu Kébémer ak gox ba parce que metti na lool ban bu dul tey jii may wax ak yéen bu dul tey jii may wax ak yéen ñoom nungu faj nungu faj médecins yi baax noo fa nekk nag médecins yi baax ñoo fa nekk kon duutuñu baaraam médecins yi ministre bi la ñuy baaraam mu jàppale waa Kébémer ak waa Louga jàppale leen ci la nga si moom la jàmbat ba médecin yi commencé wat def sen liguey nam waré nanu nu dimbali ta yalla tax parce que ñi feebar dañ leen wara taxaw ta yalla rek tax dama ci bët nag moo wax jigen bo ma ngi di mu wara ñew pour wisitu ñu yabal ko fu sori la dem diko diko diko diko, di fa défé ñen ñi tiwawon ta lolu téggul fen nan nu ngeen yeen site internet ak télé ba ñom ñu gis sen bop ñom médecin ñu fajj ministre bi waxaat leen ak ministre bi mu dindiwaat loolu mu dem waxaat ak médecin yi pour nu faj waa kilomètre ak waa Louga te yàlla rek tax ah sonn nan billaay wallaay sonn nan te yàlla rek tax waxaat leen ak ministre bi na wax na génn dimbali askan wi mu dem kilomètre ak Louga wax ak ñoom ñu commencé waat faj xale yi ak faj mag ñi ak faj ndaw ñi parce que sonn nan te ñëpp ten gi moom koy tax mi ngi dafa feebar jigéen ñi wan la ñëpp a sonn ñëpp a ñëpp a sonn billaahi wal watalaay nan leen dimbali te yàlla tax man bëgg waxulu ma sama bopp mais damaa xam ne damaa gis jigéen ñu sonn foofu te yàlla tax dëkk village yi fa nekk dëkk village la jigéen ñi jóge di ñëw Kébémer wala dëkk village yi ñëw dëkk yeneen dem dem dem Louga léegi nag bu fekkee jógewaat na dëkk village sonn dikk ba Kébémer ñuy fajun ñu dem Ndar wa ilaa ñuy dem euh, fële nu mu tudd euh, Touba wa ilaa ñuy dem euh, Tivaouane wala muy dem Thiès teguwul fenn na ministre bi génn wax bu mu nu fonto faluñu ko ngir mu toog palaasam dañ koo fal ngir mu nekk ci saafaray askan wi te li ma metti ci ministre yi na nan wàcc ci askan wax ak nit ñi ay dun yàlla dun lenn dun président nguur guru yàlla day day folliku nan wàcc wax ak nit ñi te bàyyi seen yi def wasalaam. ngir gën a mën a jot ay vidéo xibaar aboneel ci chaîne YouTube bu Caaroy info TV nga daal di bës li nga xam ne moo di cloche bi ngir mën a jot yooyu les notifications.